Mark saar juróom. ci suba teel saraxalekat yu mag yi gise ñoom ak njiit yi ak xutbakat yi ak kuréelu àttekat yi yépp ñu yeew nag yeesu daldi ko yóbbu jébbal ko pilaat noonu pilaat laaj ko ndax yaa di buur yawut yi yéesu tontu ko wax nga ko te saraxalekat yu mag yi di ko jiiñ lu bare kon nag pilaat laajaat ko déggal lépp lu ñu lay jiiñ xanaa amoo ci tontu waaye ba tey yéesu tontuwul dara ba tax pilaat waaru màggal gu nekk nag pilaat daana may mbooloo mi ñu tànn kenn ci ñi ñu tëjoon mu bàyyi leen ko fekk booba amoon na ku ñu tëj tudd barabaas ku bokk ci ñi bëggoon a tas réew mi boole ci rey nit noonu mbooloo mi ñëw laaj pilaat mu defal leen la mu daan def pilaat nag xam ne kiñaan rekk a toxoon saraxalekat yu mag yi jébbal ko yeesu kon mu ne mbooloo mi xanaa ma bàyyi leen buur yawut yi waaye saraxalekat yu mag yi xiir mbooloo mi ñu laaj pilaat mu bàyyi leen barabaas kon pilaat ni leen lan lay def nag ak ki ngeen di wooye buur yawut yi ñu daldi yuuxuwaat naan daaj ko ci bant ba mu dee pilaat ni leen lu tax gantooñ la def waaye mbooloo mi di yuuxu bu gën a kawe daaj ko ci bant noonu pilaat mi wuta neex mbooloo mi bàyyi leen barabaas ba noppi mu dóor lu yéesu ay yar jébbal ko ngir ñu daaj ko ci bant bi loolu amee ñu dugal yéesu ci biir kër boroom réew ma mooy barab bu ñuy wax prétorium ñu daldi woo mbooloom xarekat yépp noonu ñu solal ko mbubb mu xonq cur ràbb kaalak dég teg ko ci boppam ñu daldi ko wax bu kawe nuyu nanu la yow buur yawut yi ñu di ko dóor ci bopp ak bant di ko tifli daldi sukk màggal ko bi ñu ko ñaawalee noonu ba noppi ñu summi mbubb mu xonq mi solaatal ko ay yéreem yóbbu ko ngir daaj ko ci bant amoon na nag nit ku dëkk sireen tudd simon di baayu alexandar ak rufus fekk booba mu romb fa jóge ca wet ga féete ak tool ya ñu gàkko ngir mu gàddu bant bi noonu ñu yóbbu yéesu ca barab ba ñuy wax golgota li tekki barabu kaangu bopp ñu bëgg ko jox biiñ bu ñu boole ak naan gu tudd miir waaye nanguwu ko foofa ñu daaj yeesu ci bant daldi séddoo ay yéreem tegoo ko ay bant ba xam ku nekk looy am booba fekk yoor yoor di jot mbind mi xamle lu tax ñu rey ko nee na kii mooy buur yawut yi booba it ñu daajaale ak moom ñaari taskati réew mi kenn ci ndejooram ki ci des ci càmmoñam ña fa doon romb di ko xas di wëcc seen bopp ndax sib ko naan waaw kay yow mi bëgg a toj kër yàlla gi tabaxaat ko ci ñetti fan wàccal ci bant bi te musal sa bopp noonu saraxalekat yu mag yi ak xutbakat yi di ko ñaawal ci seen biir naan kii musal na ñeen waaye mënula musal boppam almasi bii di buur Israël na wàcc léegi ci bant bi nu gis ko tegam ñi ñu daajaale ak moom it di ko xarab li tàmbalee digg bëccëg ba ci tisbaar réew mépp lëndëm ci tisbaar nag yeesu woote kàddu dëgër naan elowi elowi lama sabaktaani liy tekki sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëdduma ñenn ci ña fa taxaw nag bi ñu ko déggee ñu ne mu ngi woo ci yàlla iliyaas noonu kenn daw jël aw sagar capp ko ci bineegar mu teg ko ci bant jox ko ko mu muucu mu ne bàyyileen leen nu seet ba xam Ilias dina ñëw wàcce ko noonu yéesu wootewaat ak kàddu gu dëgër delloo ruwaam yàlla bi mu ko defee rido barab bu sell ba ca kër yàlla ga xar li dale ci kaw ba ci suuf njiitu xare nag bi taxawoon ci kanamu yéesu bi mu gisee ni yéesu deye mu ne ci dëgg nit kii doomu yàlla la amoon na fa nag ay jigéen ñu leen dànd di xool xamee nañu ci maryaama mi dëkk magdala maryaama yaayu saak mu ndaw ak yuusufa ak salome bi yeesu nekkee galile jigéen ñooñu ñoo ko doon topp di ko toppatoo amoon na fa it yeneen jigéen yu bari yu àndoon ak moom ba ñëw Yerusalem booba nag bisu waajal la woon maanaam bés bu jiitu bésu noflaay bi te ngoon sa nag yuusufa mi dëkk aremate takkaaw fitam dem ca pilaat laaj ko néewu yeesu yuusufa moomu nag ku siiw la woon ci kuréelu àttekat yi te doon séentu moom itam nguuru yàlla bi pilaat déggee ne yeesu faatu na xaat mu waaru mu woolu nag njiit li laaj ko ndax yàgg na faatu bi ko ko njiit li dëggalee pilaat jox néew bi yuusufa noonu yuusufa jënd càngaay wàcce néew bi laxas ko ci dugal ko ci bàmmeel bu ñu yet ci xeer bi mu ko defee mu bërëng aw doj ubbe ko buntu bàmmeel bi maryaama magdala nag ak maryaama yaayu yusufa xool fu mu ko denc